mbokk yi seetaan Sénégal 5 TV ñu ngi leen bu baax a baax tey nag ñu def benn taxaw seetlu ci coronavirus bi lee ndaxte seetlu nañu ni cas yi dafa gën a yokk ci benn ay bés rek am nañu lu tollu ci 1000 cas mu nekk lu doy doy waar ndaxte am nañuy rooma naa ne mën nañu am lii di troisième vague te su boobaa dina sooxee lool ci suñu ek suñu koom-koom bi mu nekk lu doy doy waar ndaxte suñu koom-koom bi jamono jii ñu nekk dafa nërmeelu am na ay médecins yuy xamle ne cas yi lu ko gën a yokk bokk na ci rassemblement politique yii ñu génn maanaam ci jamono jële ñu weesu ñoom politiciens yi ñoom ñëpp dañu wàccoon ci terrain ku nekk di wone ni ma ëpp mbooloo ke sa morom kii di njiitum réew mi tamit kenn demul mu des ndaxte seetlu nañu ne lépp lu muy def desiy jaay doole nu ñu mën a nekkee si mbas mi ngay mel ni ku nekk si campagne électorale mu nekk lu doy waar doy doy waar médecins yi kenn rafetluwu ko ndaxte kaay ni ñu tasaare instant bi ni ci biir Sénégal moom loxoom génnu si tournée économique politique yi mu doon def noonu su ko defee woon ay tournée yoo xamante ne day sensibiliser askan wala sax mu def campagne de vaccination pour ñu moytandiku lii di coronavirus bi dara da ko gën waaye amul lu mu deful dem ba ñëwaat dem wër Sénégal yépp nag mu ñëwaat mu ñuy xamal ne nañu moytu lii di coronavirus bi nañu wàññi rassemblement yi naa njiitum réew mi ba nga pare nga koy soog a wax moo tax it am na ñuy am na am na ñuy wax suñu njiit yi seen bopp la ñu fi nekkal loolu moom kenn mënu ko wedd dëgg bu wér peng kon nag ku ku yeboo na jël say motukaay pour moytundi lii di coronavirus bi